Alassane Cissé maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay soxna Ndeye Comba. Alassane nga nekk membre ci au conseil des collectivités territoriales délégué national du nouveau parti déjà dama lay laaj sa xalaat ci euh, ni ñu coupé signalu Walfadjri en tout cas bi mu amee euh, par rapport ak euh, événement yu Mbàkke yi ñu bëri jàpp nañ ni liberté de la presse dafa daal di tumuranke fi ñu toll ci Sénégal ban jàngat nga ci am. soxna si dëkk dafay am. loi ak règlement am lu koy doxal barki démb maa ngi liir ci États-Unis benn train bu këpp woon mu am safara benn journaliste di ko filmer dañ ko jàpp arrêté ko ndax loolu dafay heurter science nit donc xam nga marché lu ko gënoon indi mooy télévision yi dañ ko doon def en direct xale bu nekk di toog sa koñ naan pourquoi ñii di taal te man taaluñu looloo indiwaat lii tey ba ñoom ñu jël di wone loolu pour que nit ñi donc day effet euh, boomerang lay def rek day def effet ku nekk ne man tamit du tax lu ma jóg taal donc loolu dañ ko war a tere ci dëkk bi amul benn dëkk bu ñuy wone yenn événement yi en direct ci télé parce que dafay yàq kiiraayu dëkk bi donc du liberté presse la ñu restreindre du liberté journaliste bi lañu ñu mais état bi dafa jaar ci yoon pour def loolu te waruñu woon àgg foofu ndax am na benn télévision bu ko fi defoon tamit dañ ko signalam dañ ko coupé woon pourquoi muy am ñu def ko ñooñu te duñ ko def nii donc du lu di jël rek ngeen ne liberté de la presse non liberté de la presse dafa am fu mu yem. Mhm. dafa fu mu yem liberté de la presse presse du lu la neex wax bu la neexee nga fusillé kii tey bu suba nga tagg kële bu di non no non presse warul doonee noonu presse dafa war a di rapporter fait ci nu mu nekkee mais pas une presse partisane. voilà pourtant presse euh, boobule mi ngi woon ci wetu Macky Sall euh, ci jamonoy 2012 avant muy jël réew mi bi mu nekk opposant doon na dooleel Macky Sall euh, kon tey jii bu ngeen waxee li dina nekk lu doy waar ci boppu askan wi. non Macky Sall moom 2012 kenn dooleelu ko moo dooleel boppam ndax dafa liggéey lu mu gañee presse bi ñëpp a ko doon soxla parce que produit bu neexoon jaay la ku ko jëloon ñëpp si seetaan la. te 2012 Macky Sall kese nekk fi woon opposant opposant yëpp a doon jaar wal faj rek yeneen télévision yi kon bu ñu ne dafa liggéeyal Macky Sall déedéet Macky Sall li mu am moo ko liggéey ci terrain bi. ah bon waaw. Macky Sall dafa liggéey lu ko yóbbu deuxième tour ndax pendant ñetti at muy dem ci àll bi di dugg fu nekk loolu moo ko may li mu am maintenant nag télévision yi c'est vrai que participer nañ ko parce que yokk gën nañ yok yokk audimat wam mais du ñoom ñoo tax mu am lu mu am dafa amoon ay fi fii Idrissa Seck mu ngi fi woon Ousmane Tanor Dieng feu Ousmane Tanor Dieng Moustapha Niass fii ñoom ñëpp dañ doon jaar ci télévision yi kon bu ñu singalee rek parce que nekk na président ñu ne non ñoom ñoo tax non ñoom taxuñu de ay militants ñoo tax léegi euh, ñu gis ni euh, membre Pastef yu bare bare ñu ngi leen di jàpp ah, gis nañ tamit euh, Hannibal jim nekk benn activiste moom placé nañ ko sous mandat de dépôt ban xalaat nga am ci jàpp gu bare gi nga xam ne ñu ngi koy jàpp mais fësal ko jëmale ko ci opposition bi wala rek ci waa Pastef Alassane. xam nga Sénégal du jungle. ba lu neex rek def Sénégal nag dañoo war a respecter nit ñi respecter luwaay yi boo jógee tey bëgg taal dëkk bi yoon dina dal sa kow boo jógee tey di saaga nit dina yoon dina dal sa kaw soxna Ndeye Comba yow mii ku jëloon vidéo wam taxaw ci net bi saaga la ba ki da koy yóbbu dem ci yoon yoon ñëpp la fi nekkal te nag dëkk bi dañ dafa jata aar parce que yàqu-yàqu yu teef yi di fi am waru fi woon am ku mu neex mun nga dox mun nga marche mais sa marché buñ ko teree lu tax ñu yàq Mbàkke ñuy yàq Tuuba lool war ngeen ko xoolaat yéen yéen ñuy journaliste pourquoi yàq yi nekk Touba te nekkul Mbàkke fa ñu waroon dem meeting préfet wu Mbàkke moo tere meeting ba de du préfet wu Touba du préfet Ndaam de moo ko tere. Mm-hmm. waaw kon lan la ñuy yàq mu ne yàq Ndaam Euh, Mbacké ba préfet ba Kéré donc loolu moo lay won ni euh, Sénégal dafa am loo xam ne dañ ko fi bëgg ji te mosu fi woon am donc il faut que nit ñi jël seen responsabilité état bi jël responsabilité am ku def lu dul noonu état bi jaarale la fa yoon di jaar loolu mooy dëgg mais waru leen toog naan dañu jàpp diw dañu jàpp mais seet leen diw yooyu lan la ñu def muy Hannibal Djim ak muy keneen dafa am lu ñu def Sénégal kenn du xëy rek jàpp nit te defoo dara mënuñu am police bu xarañ gendarmerie bu xarañ bokk ci gën a baax ci monde bi ngeen ne dañuy jàpp noonu nit non kuñ fi jàpp rek dafa am loo def. beneen laaj euh, jëm ci ñu ñu jàpp ba léegi fi ñu toll ni activiste yu baree bari taxaw nañ euh, rappeur yi ñoom seen bëgguñu libérer nit dof si xalaat. libération. waaw xam nga xam nga nit nag boo koy jàppale tamit terewul nga bañ ko wax dëgg nit bu tooñee da ngay taxaw nga jéggalu ne a ah, suñu nit tooñ na ñu ngi jéggalu ngeen baal ko waaye Sénégal rek ngay gis nit tooñ ba pare ñu ne déedéet nañ ko bàyyi lii affaire politique la war a lële la déedéet du noonu mënoo def sa vidéo saaga nit ñi ba pare. ñu jàpp la ñu naan non nañ ko bàyyi ci lan la ñuy wékkandiku pour bàyyi ko xanaa dëkk bi dootul am yoon léegi mais dëkk dañ fa war a régler ku deful lu dul noonu ñu teg la ci yoon mais taxaw rek mais bàyyi leen nit ki ci non dafa am lu mu def li mu def ñëpp ko gis mu ne weng ci toile bi donc buñ ko jàppee yow mi ànd ak moom da koy njëkk a wax dëgg ba pare wax dëgg ba pare jéggalu ci ñim ko def mais doo taxaw naan bàyyi leen ko noonu ñu bàyyi ko ci lan. léegi euh, société civile bi ñoom nag euh, nee nañ euh, nañu def euh, appel euh, ngir dialogue am ci diggante opposition bi ak état bi est-ce que yow jàpp nga ni lu ni mel mën na nekk ci jamono ji nga xam ni euh, situation politique bi doy na war. xam nga ñooñu duñu société civile société politique la ndax bu ñu doon société civile danañ wax ak boor bi wax ak boor bële mais bu fekkente ni yow benn boor rek ngay far lu ñu lu boor boobu def baax na lu boor boobu wax baax na boor boobu appelé na fi à au meurtre def nañ saccage Touba wax nañ fi lu ne ba seen benn waay sax wax waxu dax dax wa est-ce que dégg nga société civile bi wax ci condamné wuñ ko condamné wuñ dara xëy suba ne nañ leen waxtaan pour xool dëkk bi lan lañu ñu war a waxtaanee ak ban waxtaan nañ ko wax nit ñi. pour jàmm am Sénégal. Euh, ñu bëri ma mu ngi Sénégal ku bëgg jàmm am ko ku bëggul jàmm doo ko am jàmm a ngi Sénégal de. Euh, pour jàmm am Sénégal ñenn ñi jàpp nañ ni euh, surtout côté société civile bi <coughs> Macky na bu fekkente ni daf ko bëgg na renoncer troisième candidature. xam nga xam nga ñoom li ñuy wax man li may wax mooy gis nga temps médias yi ñoo ko entretenir. moo tax ñuy ñoom ñooy wone tension naan tension dafa am tension société civile bi di ko relayer mais Sénégal nit ñaa ngi dem di vac nit ñaa ngi dem di liggéey ñuy doxi di dox ñuy jaay di jaay ñuy régler seen problème régler seen problème ana bi kon bu fekkente ni jàmm rek la ñuy woote nañu wax d'abord ñoom ñañu àndal jàmm ba pare ñu doog a taxaw wax ak état bi mais woote jàmm ci lan ak jàmmoo lan mais maanaam bu jàmm bëggee am Macky na renoncé troisième candidature. loolu kay laa la laaj xalaat. loolu duma ci wax xam nga lu tax nañu dem lire article vingt sept. Mhm. parce que musuma gis nag loi constitutionnelle bu rétroactive buy dellu ginnaaw. loi constitutionnelle amul tànku ginnaaw tànk kanam la am. bu fekkente ne nag ñoom léegi ñoo bëgg indi ci loi constitutionnelle tànku ginnaaw ñu wax ko amul ci monde bi fu mu am fépp foo gis loi constitutionnelle amul amul tànku ginnaaw léegi nag bu fekkee ñoom euh, naa fekk nañu ba bëgg wax loolu nañu wax nit ñi fan la ñuy jaar. HCCT euh, naka liggéey bi foofu. comme que installé ngeen ko waaw fi mu ne nii commencé nañ ko ñu ngi ci travaux de commission yi parce que ubbi woon nañu session bi ñu ngi ci travaux de commission yi bu ñu paree doog a dem plénière. comme d'habitude nu muy demee rek. am na ñoo jàpp nañ ni kuréel gi moom amul benn njëriñ ci fonctionnement wu réew waaw ñooñu seen xa seen xalaat la parce que xamuñu ni dëkk institution mooy tax mu dox bu dëkk amul institution dootul dëkk. rapport cour des comptes bi Alassane Cissé loo si xalaat parce que euh, procureur euh, jël na dossier bi en main gis nañ tamit euh, déclaration bi nga xam ne Ismaïla jox Fall def na ko ministre de la justice yow loo si xalaat rapport bi ak ñi ñu jot a waaw xam nga rapport bi justice mooy def liggéeyam nañu bàyyi justice def liggéeyam comme jël nañ ko ba jox ko justice bi. justice bi ku mu woo boo mënee justifier nga justifier boo ko mënul mu dal sa kaw kon amul leneen luñ ciy wax ndax boroom réew mi ci boppam moo ko joxee pour mu jàll ci justice bi moo ko jox ministre de la justice pour mu jàllale ko ne amul benn kii donc kon kay loolu wax ju yàqu la loolu wax ju yàqu la ndax magistrat yaa ngi liggéey hmm. mais mais mais ñi nga xam ne dañ leen a tudd ne dañu euh, détourner euh, fond force Covid 19 yi si jamais bu nekkee dëgg yow loo si xalaat. mais kuñ ci tudd te muy fekk dëgg mu lañ lay jiiñ mu nekk dëgg. Mhm. na yoon def yoonam loolu rek laa ci am lu may wax yoon na def liggéeyam. voilà honorable Alassane Cissé Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. jërëjëf soxna Ndeye Comba merci beaucoup waa réew Rewmi FM yëpp jërëjëf. voilà may fàttali ni membre nga ci Haut Conseil des collectivités territoriales nekk délégué national du nouveau parti. waaw.